première phase bi moy bala hivernage bi deuxième phase bi moy su démé ba ci hivernage nek ba ci digg bi ak troisième phase moy su démé ba ba hivernage bi jeex avant école bi ibbi ñu def ko. bëggoon nañ ko def nak un peu après avant tabaski bi mais dafa fekk ni dëkk bi dafa fesson dal ak ay jur. donc euh, nit ñi mën nañ leen wax ni fatu bagage yi mën leen fat mais jur gi kenn mënu leen fat looloo waraloon nak ñu procéder ñu préférer won bàyyi ba suñu jullee ba ci gënaaw ëllëg sa ñu def ko. waaye nag mu considéré nag président bi war fi ñëw donc looloo waral tey ji ñu nekk di def euh, campagne saupoudrage bi tey la ñuy démarré tey ji ñett axe lañ koy def bu ñu njëkk dañuy def euh, Langue de Barbarie bi ak euh, ak axe île bi suñu paree ñuy def axe Pikine ak Soor bi suñu paree ñuy def axe bi nga xamante ni mooy axe Ngalen bi Bango ak Vauvert ak ñoom seen ak yooyu. Mm-hmm. donc comme nous ñu ko def chaque année euh, donc euh, lolu day fexé dana dana tax ba suñu lepp li nga xamanteni moy yo lepp li nga xamanteni moy mooy lepp lépp li nga xamanteni moy benen xétu xeetu yi nga xamanteni ne fi am dana permettre lolu véritablement wàññeeku te de aussi dana permettre ñëpp am ci.